ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة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 waxtaane mbir mu rëy mu solo ci diine muy jihaadu sidna nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi alkiram baatu jihaad nag dañ ko diaboliser tey dëkkale ko fuñ ko fuñ ko warta dëkkale ba jullit yu bari sax waru ci buñ ne jihaad rek ñu xalaat terrorisme te ñi boole jihaad ak terrorisme di dëkki tubaab yu mag yi ñooñ dëgg-dëgg ñooy ñooy terroriste yi ndax ñoo fekk nit ñi seeni dëkk terroriser leen di leen imposer seen idéologie ak seeni culture ak seeni façon de voir euh, àdduna ak na mu wara a tëddee terroriser nañ nit ñi ci force def nañ ko culturellement def nañ ko moralement yal na yàlla jëflanteeg ñoom jëflanteeg a yàlla te yàlla baaxal ñu defaral ñu suñu waaxir defaral ñu suñu baatin jihaad ak terrorisme jotewuñu dara hmm. te tamit baatu jihadiste jullit du ko wax ndax jihaad dafa nekk principe bu ci lislaam te bëri façon te bi lislaam nangu bu dee ci wàllu force mooy li ñuy wax légitime défense moom la yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yi def bañ ko defe nag xam ne njàmbaar ga ci ñoom jéggi gim jéggi dayo ba yéeféer yi xam ne ñii ñu doon tooñ ci màkka bañ génn dem Medina tey ñu wan ñu lii bañ ñëwee nar leen a arrêté seen diine ndekete du ñu ragal waaye ñoo jotagul woon ndigal lañ bañ jotee ndigal nag képp ko taseet ñoom xam nga ne ñoom rek ay góor moo tax mu ne raaxat quluba li ida am ba aw bi'thatihi ka nabatin ajhalat ghuflan min al-ghanami yonentu sallallahu alayhi wa sallam balaa moo bocc jaasi di jihaad la njëkk a tiital yéeféer yi mooy yónni nañ Muhammad sallallahu alayhi wa waaw nee na yéeféer yi nañu tiitee ñu ngi mel ni euh, géttu gàtt gu dajaloo dégg nga nekk ci càggan ñu toog jékki saa rek benn xaacum ponkal moo xam ne xaaju mi xaw na bët miir yi nañuy tiitee tasaaroo di daw nee nag tiitaale googu la yéeféeri tiit ba ñu déggee baatu tawxiid ba ñu déggee baatu jaamu yàlla kese te duñ ko bokkaale kenn raaxa tiital na quluubal idaa xolu noonu an ba u bi'ithatihi xabaar yi yónnee ko yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nëbaatin mu mel ni xaaju aj falat boo xam ne moo tiital te dawloo te tasaare te gaawal ca daw ga xuflan way sàggan minal xanami ci juri kër nee na moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaami ma zaala yalqaahumu fi kulli muctarakin xatta xakaw bilqana laxman ala odami yonentu sallallahu alayhi wa sallam mosula dëñ di dajeek ñoom xare gannaaw xare xare gannaaw xare waaye xare ñoom boo xoolee yéeféer yëpp gannaaw xare ba dangay foog ne yàpp wu bouché teg ci tabletam di dagg la mm-hmm. noonu la leen jàmbaari yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. di def alayhi salaatu wasalaam wa mm-hmm. ñoom de ñoo leen doon song ngir jéem a arrêté diine waaye bañ ci duggee ñoom yéeféeri waddul firaara ngéeju nañoo daw fa kaadu yagbituuna ashlaa shaalat maa al iqbaani wa raxami waddu dañoo mujj di ngéeju alfiraara daw fakaadoo xaw nañ sax yaxbituuna di ñee bi ngir lañ gis yaxbituuna lan ashlaa shaalat maa al iqbaani wa raxami dogitu yàpp yoo xam ne dégg nga ña nga ca gémmiñi liccin ña nga ca gémmeñi tan mm-hmm. yàpp yooyu nga xam ne liccin yëg tan yi jël nañ leen yóbbu leen ñoom nga xam ne mm-hmm. taqalikoo na ñoom xare mm-hmm. ñoom génn nañ ci dégg nga fa ñuy rayante ñoom yéeféer yi bañu ñu janoog saxaaba yi dañoo mujj ñee yàpp yooyu nekk ci gémmeñu tan mujj ñee yàpp yooyu nekk ci gémmeñu liccin yi ak a mën a way kaar nee na waddul firaara fa kaadu yaxbituuna bihi ashla ashaalat ma al iqbaani warraxami loo teg tam di layaali wala yadruuna iddataha ma lam takun min layaali al ashhur al xurumi nee na jamono yii ma lay wax soo gisee yi féer mu xam tay la kañ rek dafa fekk muy weeru rajab ndax kenn du ca xeex dafa fekk muy weeru dul qaadati dafa fekk muy weeru tabaski dafa fekk muy weeru tamxarit ndax ñeenti weer yi dañoo xaraam dañoo xaraama xeex bu ñu xamee tay la kañ rek dafa fekk ne dañoo nekk ci ashurul xurum waaye bu dul loolu bés guddi dana romb duñ xam tay la samedi mbaa dimanche duñ xam tay la premier mbaa deux ndax tiit gi ñu tiit ci doole gi nga xam ne ñoom lañ def faas muy doole yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam mu ne ka annama diinu dayfun xalla saaxatahum bi kulli qarmin ila laxmil ida qarimi ka annama diin dafa mel ni diine dayfun gan la goo xam ne xalla dafa wàcc saaxatahum seen digg ëtt bi kulli qarmin ànd ak bépp sang boo xam ne qarimi aji tat ji bëgg la ak dégg nga bëgg a consommer ila laxmil ida yàppi noon yi maanaam gan goo xam ne dafa xiif nga xam ne yàkkamti nañu tegal ko yàpp ba mu dégg nga xéewlu nee diine bi mu egsee ànd ak saxaaba yi ak seen njàmbaar noonu lañ mel ci kanam yéeféer yi noonu lañ mel ci ëttu yéeféer yi alayhim ridwanullahi tabaraka wa taala lu tax parce que ku nekk ci ñoom bu duggee ci jihaad ji xalaatatul boppam yàlla rek lay xalaat jaay na boppam yàlla jaay na boppam dégg yonantu sallallahu alayhi wa sallam na alalam yàlla jaay na alalam yonantu sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne na muy na muy na muy songee noonu rek nga koy mën a ah, nirole mu ne yajurru baxra xamisin fawqa saabixatin yarmi bi ma min al abtaali multatimi yonantu sallallahu alayhi wa sallam ma ngay diri géej waaye géej ga dee am lël la boo xam ne dégg nga juróomi xaaj la muqaddimatu mu axiratu wala muqaddamatu ak mu axaratu boo ci wax baax na qalbu ak janaaxayn fawqa saabixatin ñu nekk ci kaw fas yoo xam ne nañu da dawee ña nga mel ni ñuy féeyi yar mi géej goo xam ne ma ngay sànni bi mawjin ci duus ab abtaali ci dégg laale moom ay jàmbaar lañ duus yoo xam ne multatimi aju toftaloo lañu mu ngi nirole dégg nga armée yonent yàlla muhammad bi salallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam comme géej goo xam ne mi ngi dégg nga ñëw ak i ak i ak i ak ak i duusam ñoom nag ñu nekk muy muy maanaam xare ba rëyaay ba mu ngi mel ni rëyaayu géej dégg nga ñoom saxaaba yi nañuy feeye ca xare ba ak seeni fas ñu ñoom lay nirole Mm-hmm. ne ñuy dem ci xare bi ak seeni fas noonu lay niroole mm-hmm. dégg nga ay feykat mm-hmm. ak nañu mel ni ñoom ay ñooy duus yoo nga xam ne euh, dégg nga dañoo tàppoo toftaloo dégg nga ak doole ja ñu am gaaw ga ñu am jëm ci noon yi alayhim ridwanullahi tabaraka wa taala min kulli muntadibin lillahi muxtasibin yastu bi mustasilin lil kufri mustalimi boo xoolee xare ba nag min ko limun tëddibin daaw a fekk képp koo xam ne aju wuyu la wooteeb yàlla lillahi muxtasibin te fekk wutul dara lu dul yool bu ko ci yàlla yool ak gërëm gu ko yàlla gërëm yastu muy song nag bi mustasilin ak jaasi joo xam ne aju faagaagal la lil kufri ma la yéeféer yi waaye dafay faagaagal kéeféer ci boppam mustatimi aji faagaagal la ko ndeysaan xataa gadat noonu lañ nekke ba xëy millatul islaami diinay lislaam waxiya te moom millatul islaami bihim ci seen sabab ñoom saxaaba yi ak seen sang yonentu sallallahu alayhi wa sallam mawsulata rahimi di kuñ jokk bokkam min baadi xurbatiha gannaaw tumuranke lislaam ba muy kumuranke ba muy commencé dafa tumuranke waaye dem na ba fu ne mu am fa bokk te bokk ga ñu jokk ko ndax saxaaba yi tey jii ñu ngi fii ci Amérique ci digg ci euh, New York mm. nekk ci jumaa te foo dem ci àdduna noonu la mel ku ko jox lool mu ne ak seen sang ba sallallahu alayhi wa sallam makfulatan abadan minhum mi xayri abin wa xayri baalin falam taytam walam taimi makfulatan muy kun wët wët moom lislaam millatu moo tax mu jigéenal abadan ba faw minhum ci seen sabab ñoom saxaaba yi ak yonentu bi xayri abin ci gën baay minhum wa xayri baalin ak gën ji jëkkër minhum moo tax falam taytam lislaam bu doon jabar la ñu ne jëkkëram deewut walam te im bu doon bu euh, doom la ñu ne baayam deewut walam te imi bu doon jabar la ñu ne jëkkëram deewut maanaam lislaam daal bu doon jigéen la jëkkër ja gën a baax a ngi koy sàmm bu doon doom la baay ja gën a baax ma ngi koy sàmm te baay baak jëkkër ja ñooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam fa lam taytam walam taymi humul jibaalu fasal anhum saadimahum maada raa minhum fi kulli mustadami nee ñoom saxaaba yonentu sallallahu alayhi wa ak seen sang ba ñooy doji ñooy montagne yu nga xam ne ku ñu mbëkk nga daanu ku leen mbëkk daanu laaj leen rek ñi leen song lan lañ gis ci ñoom xare bu ñu dajee ak ñoom mu mel ni danga nga bëgg a wax ne ñooñu gisuma leen ba leen di laaj yow mi ko gis dégg nga laaj wax ma mu ne wasal xunaynan laajal xunayn xare la wasal badran xare la wasal uxudan xare la fusulu xatfin lahum adha min alwaxami mu ne xare yi ma tuddal la ak yu ñoom boo ci gis rek ay saison wu dee la pour yéeféer yi saison wu dee yoo xam ne ñoo gën a garaaw ñoo gën a dégg nga mën a rey am mbas xam nga mbas buy rey dafay faagaagal mm. lu gis nga li fi xewoon ñu doon ko corona ni nit doon dee mm. waaw nee na buñ dajee saxaaba yi ñoom yéeféer yi ñuy dee moo gën a gaaw moo moo raw loolu waaw laajal laajal laajal xunayn ak ña fa tasewoon ak saxaaba yi njàmbaaru saxaaba yi laajal badr laajal uhud fusulu xadfin lahum dégg nga di adha min al waxame al المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم المصدر البيض ñoom ñooy dellu dégg nga de ak seen jaasi ya weexoon tàll xumran ñu mujj di xonq di woy xonq ñoom jaasi ya baadama waradat gannaaw bu ñu rotee kulla muswaddin bépp aju ñuul minal limami njeeñu yéeféeri min al ida min al limam ci njeeñu yéeféeri min al ida ci noon ya seen jaasi ba ñuy ñëw ci xare ba dafa wextal waaye buñ ca dóor ci kàngum yéeféer buy génn dafay xonq cuy al musdiril biidi maanaam seen jaas yi buy dem day weex waaye buy dëpp day xonq coy ndax deretu yéeféer yi taggal ma taggal ma jàmbaar yooyu taggal ma jàmbaar yooyu la bëgg ma jàmbaar yooyu mu ne walkaatibiina bi sunuuril xatti ma tarakat aqlaamuhum xarfa jismin gayra munadimi wala gayri munadimi xarfa jismin gayra munadimi jismin gayri xarfa gayra gayra munadimi ñoom ñooy way bind bi sumril xatti ci jaasi yaa ci guntux yaa ñoom dëkk bu ñuy wax xatt muy marfawu xatt ca baxrayn lañ leen defaree wala fa lañ leen di jaayee bindkat yooyu dégg nga di bindee guntux yooyu maa tarakat wut aqlaamuhum seen xalima ya xarfa jismin xarafu dégg nga jëmi yéeféer xayra mun ajmi te fekkul muy xaraf wuñ tombut te duut muy xaraf wuñ tombut wala duut muy xaraf wuñ <coughs> eh, bi dafa am xaraf yuñ tomb am yuñ tombut waaye ñoom bañ duggee ci alphabet wu yaramu yéeféer yi ba wuñ fa xaraf lu dul tomb nañ ko xaraf wuñ tomb da amatut mooy bàyyiwuñu benn yaram wu yéeféer gannaaw xare ba lu dul boo xoolee da nga gis jeexitu guntux yi ak jeexitu jaas yi ndax njàmbaar gi nga xam ne ñoom la fa dégg nga jullit yi wane mu ngi wane ne ñoom dañoo euh, xereñee jaasi xereñee xeej ba mel ni yow mu yore xalima di bind xam nga doo ci am benn jafe-jafe pour bind ñoom it seen xeex ak amuñ ci benn jafe-jafe dégg nga de seen xeex ak yi mm-hmm. amuñ ci benn jafe te tamit yàlla dimbale na leen ba fuñ ko war a def lañ koy def ndax mm-hmm. kuy bind fu mu war a tomb lay tomb fu mu a tomb mm-hmm. du fa tomb moo tax ñoom it kuñ war a xeexal lañuy xeexal waaye kuñ war xeexal duñ xeex ak yow hmm? mu ne shaaki silaaxi lahum siima tumayizuhum walwardu yamtaazu bissima ani salami mu ne ñoom ñooy borom mi yu ñaw yu mat dégg nga de nga ne ko loolu ku ne am na ko yéeféeri sax loolu la ñam mu ne waaye lahum ñeel leen sima mandarga yoo xam ne tumayizuhum simahum fi wujjooy mandarga yoo xam ne tumayizuhum moo leen di xàmmee ak lu tax noonu lañ mooy lan mu ne wal wardu yamtaazu gis nga hmm. gàncaxu war gàncaxu ward ak gàncaxu sëlam ñoom ñaar ñoo niroo ñoom ñaar ñëpp gàncax lañ hmm. ñoom ñaar ñëpp dañoo am dëkk am déet hmm. ñoom ñaar ñëpp dañoo am gàncax dañoo bari xob dañoo am dëkk waaye lu leen wutale ward dafa dafa rafet te xeeñam dafa neex dégg nga saxaaba yi tamit seen njàmbaar lu ko wutaleeg ñële xoolal si maam fi wu boo leen seenee rek xam ne ñi nit yàlla dëgg lañ ndax màndargay sujjoot ya nekk ca seeni seen nga de ya seeni jë dégg nga de mu ne euh, lum teg tuhdi ilayka riyahu nasri nashrahu mut fa taxsibu zuhra fa taxsibu zahra la war a bind fi lak maami kulla kami waaw mu ne tahdi ilayka dana dégg dana jubale ci yow riyaaxu nasri ngelawu ndimbal nashrahum seen xet gu neex fa taxsibu nga ba danga jortu sax ne az-zahra dégg nga fleur fil akmaami boo xam ne mi ngi ci mbuusam danga jortu kulla kami muy bépp jàmbaar wala kulla kami mooy bépp aji sol ngànnaay te mooy jàmbaar rek maanaam saxaaba boo gis boo ko jubee dégg de ni xamee ne ñoom ñoo gañe da ngay gis dégg nga jaas yi yiñ yore ak xeej yiñ yore ak seen yére yi dégg nga ak seen bubu koŋ yi deretu ca taq moom lay niroo léeg dégg nga fleur parce que fleur dafay xonq mu ne boo leen gisee ñuy ñëw ni ngay xamee ne am nañ ndimbal mooy deretu yéeféer ya nga gis ñu taq ci seen i yére taq ci seen i xeej waaw taq ci seen kii mm. eh, seen i seen i waaw waaw ndeysaan dégg nga de loo teg mu ne ka annahum fi zuhuri ah fi zuhuri alxayli mhm. nabtu ruban min shiddati alxazmi la min shiddati alxuzumi mu ne boo leen gisee ci seen kaw gannaaw yi fas yi moom ñoom saxaaba yi boo leen gisee ñu war fas nekk ci xare mhm. da ngay foog ne gàncaxu jànj lañ xam nga gàncaxu jànj ah xam nga gàncaxu jànj ngelaw li day ñëw mu naan nii ngelaw li day mu naan nii ah, ngelaw li dana ko yànde waaye du daanu mukk mu tax mu ne lu lu tax nag ñoom ñu nekk ci fas wa dëgër dégg nga di defa nii di yaanoo ko nii te duñ daanu min mu ne min shiddatil xasmi laa min shiddatil xusumi duul ne teggaa dëgër de waaye pas-pas yaa dëgër dogu ga la waaw maanaam jàmbaar nañu jàmbaar ga nekk ci ñoom dégg nga pas-pas bi ne ci ñoom dogu ga ne ci ñoom moo leen bàyyi ca kaw gannaaw fas ya waaye duul ne fas wa nuxra ga wala tegg mm-hmm, mm-hmm. wala nañ ko deferee moo dëgër du fas wa mm-hmm. du lañ teg ca fas wa waaye ña ca kaw fas wa la min shiddati alxazm la min shiddati alxuzumi waaw ah, alayhim ridwanullahi tabaraka wa taala wa ala sayidihim salawatullahi wa salaamu mu ne taarat qulubu lida min basihim faraqan fama tufarriqu bayna albahmi walbuhami mu ne taarat naaw na qulubu lida xolu nooni faraqan ngir ragal faraxal ngir ngir tiit min ba asiyim seen kattan min ba asiyim seen wañsu maanaam noon yi ragal dégg nga euh, wañsu ak kattanu saxaaba yi mm-hmm. tiit loo na seeni xol ba fama tufarriqu boo leen di xool mm-hmm. doo mën a xàmmee sax baynal bahmi diggante baham mm-hmm. wal buhami ak diggante buham seetal loolu maanaam mënoo xàmmee kanay jàmbaar ci ñoom ak kanay ragal fa ma tufarriqu bayna albahmi wal buhami albahm mooy doomi dégg nga gàtt doomi nag ak yooyu doo mun a xàmmee dégg nga doomi kii doomi nag la mm. wala kii jàmbaar la maanaam eh, li mu bëgg wax mooy boo leen doon xool ñoom yéeféer yi dootu ndax nañuy dawee ak nañu tiite dootoo xamati kan moo ci ra moo ci bàxaar mm-hmm. ak kan moo ciy jàmbaar seen jàmbaar rek seen bàxaar yi mujj nañ ci même situation lañ nekk mm-hmm. wala fama tufarriqu ñoom yéeféer yi xàmmeewuñ baynal bahmi diggante doomi nag wal bahmi ak jàmbaar dem nañ ba àndatuñoo ak seen sago ba mënatuñoo xàmmee lanay lan kan kan lu tax dañoo dem ci tiitaange ndax doole ji leen saxaaba yi wan ba yegg foofu nga ne ko waaw buusiri loolu lu mën a nekkee mu ne awa man takum bi rasulillahi nusratuhu hmm. in talqahu l ust fi ajamiha tajimi wa man takun képp koo xam ne nusratuhu ndimbalam bi rasulillahi mi ngi ci yonantu yàlla muhammad hmm. sallallahu alayhi wasallam ku ànd hmm. ñaanal in talqahu su dajeeg moom al usdu gaynde yi fii ci seeni gol maanaam ci fañ dëkk ñoom sax nga fekk fa gaynde ya gën a gannaaw yonantoy sa ndimbal te ji mi gaynde ya dañuy dal dañuy wedem dañuy dañuy ñàkk kattan hmm. dootuñ nekkati tus maanaam gaynde dafay mujj nekk golo su dajee ku yàlla dimbalee yonent yàlla Muhammad hmm. jàmbaar yi yéeféer jàmbaar lañ de hmm. waaye bañ dajeeg saxaaba yi mujj nañu nekkatuñ tus lu tax saxaaba yi dañoo am yonent sallallahu alayhi wa sallam te ñoom amuñ yonent mu ne walan tara min waliyin gayri muntasirin bihi wala min ahdubin gayri munqasimin walan tara doo mas min waliyin waliyu yàlla min waliyin xarit boo xam ne xaritu yonantu la sallallahu alayhi wa sallam muntasirin te fekk duul muy kuñ duul muy aji dimbandiku doo fekk mukk ku ànd ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla du ko dimbale te du am dimbal ci sabu yonantu wala min aduwin doo fekk noonu yonentu xayru munqasimi duul muy aji damm duul muy aji alko maanaam koo gis mu ànd ak yonentu xamal ne ku yàlla dimbalee ngi dimbal rek waaye koo gis mu noonu yonentu xamal ne alko rek alko rek alko rek moom yonentu daal axalla ummatahu fi xirsi millatihi kallayfi xalla ma al ashbaali fi ajami axalla moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo wàccee ummatahu xeetam fi xirsi millatihi ci barab boo xam ne barab bu bu protégé wu bu ñoŋ la barab bu moy barab bu lislaam gi nga xam ne mooy diineem maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ñoŋalee diine moo ñu protégé diine ka lay si mel ni gaynde xel la gog wàcc na maa la ashbaali ànd ak doomam yi fii ajame ci gol ni gaynde di protéger ay doomam ca fa mu nekk ca golam nu nu ko raw la yonentu sallallahu alayhi wa sallam di protéger njabootam gi te mooy xeetam wii di xeetu lislaam kam jaddalat kalimatullahi min jadilin fiihi wa kam xasama alburhaana fiihi kam jaddalat bari na bu sànnee ca suuf kalimatullahi baatu yàlla yi di alxuraan min jadalin aji weerante bari ku ñëw di weerante alxuraan sànni ko kon nga xam ne jihaad ji du jihaatu jaasi rek waaye jihaatu alxuraan la wa jaahiduhum bihi jihaadan kabiran fiihi wa kam xasa min xasimi bari na kuy werante ci yonentu sallallahu alayhi wa ak risalatoom alqur'an ñëw wedam loo indi lu mel nii du ko mos a bari na bu notee ak lay alburhaanu lay yu leer lay wu ñi wii di yonentu di alqur'an ak mucjisatami min xasimi aji xuloo ak moom bari na ku ñëw ne day xuloog moom benn laay la lay wax rek wala lay woo xam ne moo lay wedam loo maanaam kenn du notanteeg yonentu sallallahu alayhi wasallam lu dul alxuraan dimbale na yonent kenn du weeranteeg yonentu sallallahu alayhi wasallam yàlla jox na kaw lay wu tax ka doon weerante dootul te ndax yàlla lépp la ko jox mu gën a xam ñëpp mu ne loolu rek nag doy na doy na doy na kéemaan kafaaka bil ilmi bil ummi jahiliyati wa ta'dib fil yutumi waaw dégg nga doy na mujisa koo xam ne mosuñ ko wax alif ba te mu raw ñëpp te mu raw ñëpp ah, ba pare nekk ci jamono yi ignorance muy jaahiliya doy na it mujisa koo xam ne bay dundut ba mën laa yar yaay dundut ba mën laa yar te nga ëpp teggin ñëpp ëpp culture ñëpp mm-hmm. doy na mujisa doy na mujisa